ñu toog tey ak góor goo xamante ni kenn dootu ko présenté ti fii ci réewum Sénégal waaye tamit ci àddina wërngal këpp muy Bocar sàmba Dièye ku ko xam nak daal di koy xam ci wàllum commerce wàllum jënd ceeb waaye tamit wàllum bay ak wàllum exportation ak importation tey ñu daal di toog ak moom ginnaaw bi nga xamante ne rek euh, nuyu nañ ko dañu koy bàyyi rek suñu papa suñu maam di Bocar sàmba Dièye ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan. salaamaaleykum nuyu ñi koy dëgg ak ñi koy gis e man day as commerçant laa rek boo xam ne day démerde nit moom liggéey du la may alal waaye booy liggéey boo amee ñëpp dañuy wax liggéey kan nga waaye ma yàllaay maye waaye nag booy liggéey ni nga war a liggéeyee bu yàlla defee nga am kenn du la wax xaalis bi xëy na da koo sàcc wala da koo njublan mm-hmm. parce que dañuy wax liggéey kan la waaye liggéey mayewul alal nekk kàddu yu am solo ndaxte yàlla suñu borom mooy maye waaye comme ni ko waxee rek tey suñu bëggoon a xam ana kan mooy Bocar Samba Dièye lan nga ñuy wax. ah man de bu doon fale kenn du wax Bocar Samba Dièye. bu doon fale fànn bu doon fale jàll. Bocar Samba Mamadou Farba may wax. Mm-hmm. parce que su Bocar yi amee ñett wala ñeent man suma maam falu na Farba Dial vingt huit vingt vingt eh, huit ans. Farba Fawura falu na jal Farba jal vingt-huit ans taawam moo jur sum pap pour ñu ràññale ñu xam kii mooy Bocar bi euh, suñ ma gisee au lieu ñu ne Bocar Samba Dièye dañuy wax Bocar Samba Farba Fawura boobaa ñu xam ne mana dàkkantal yi mhm. ñun noonu lañu xamee ma nekk sàmmkat am na yu bëree bëree bëree ci dikk waxuma suñu dikk dikk yi nga xam ne yu nekk Fuuta booso ya bee bori laaw sàmmkat yi bëri xamante na ak ñoom sàmm naa cinq ans nekk bali ci ci yëf yi di dox eh, bon bi nga xam ne suma morom yi commencé ñu dem Dakar xam nga toppandoo rek ma ñëw toppaleen bi ma leen toppe ma ñëw ma nekk fi quarante cinq jours mooy temps bi ma liggéeyee ak benn jigéen jigéen bi ñu ngi dëkk bu Ourossogui yàlla def ma nekk foofu antu daal di ma nekk ci Dakar yëpp quarante cinq jours ma ñibbi ñu xas ma ma jóge kayit di bee xaay ci suma tànk léegi ma bàyyi li ma jàngoon alxuraan bi fale bàyyi li ma jàngoon càmm bi fale ma nekk di cubbaloo di nappa jin diggante dem bankaani eh, dem kii eh, Bakel bee tiyaabu foo xam ne xeer mu ngi dex bi xam naa ko pomu xaay bee ñëw maatam fu banta nekk ci biir ndox mi lon ko caax xam naa ko nappkat jin la après def nga ci ñaata at ci métier napp jën bi def naa ci lu six ans encore comme si cinq ans yu ma laa def ci sàmm ma ñëw après mille neuf cent cinquante six ma ñëw Dakar fekk màgg na ma liggéey tropicale neuf mois ñu nag suñu béy bu bala ñu indi baras yi ñu suñu béy bu jotee lépp lu ñuy def dañuy bàyyi dem béy parce que béy bi mooy suñu nga am am bu am solo tubaab bi ñuy xiif ay quarante ak yooyu dañuy bojj suñu dugub di ko yóbbu français di ko dundee ma dem béy tropicale bi ma liggéey fa mooy bi ñuy tabax tribunal bi nekk Kermadel liggéey naa fa neuf mois ma bàyyi dem béy ma ñëwee amaatuma place ma commencé jaay marchand ambulance ba cinquante huit ñu mayee taabal sandaga bi sandaga yi ma am xaalis am naa parce que am naa sandaga trois cent cinquante mille ma demee ma am trois cent cinquante mille ma dem société dans la wecc yëpp fukki dërëm dem maye lépp ñëw toog ah. benn dërëm desul su ma paas sax su ma yaay ma ko man doyuma xaalis dara boobu sax xamulu xaalis di jëriñ ñun am nañu nag am xar am yooyu man am tool yu baax toppatuñu loolu ki ma bokkoloon mu ne ma a ah, yow dawaa dégg nga ne sa xaalis yëpp da ko may ma ne lu may dooyee xaalis dama lay laaj rek lan daa war a dooyee xaalis mu ne kon nañu seddoo ma ne ko jëlal taabal bi lépp bo jëlal mu ne ah ma ne ko jëlal lépp man toppandoo rek ma indi xaalis lan laa koy dooyee ma commencé tuuti jaay suyeen ma am benn ñeeño mu ne ma waaw yow da ba bàyyi taabal bi ma ne ko ah kii nga xam ne wala ñu bokk sax ndab bu ñuy lekkee bu nee nañ seddu taabal man damay seddoog moom xam nga ñun tukulóor yi suñu jikku rek mu ne ma gis naa taabal gara Dakar mu indi ma fii ci école bii benn taabal ma loué ko 1000 francs ma fekk ku ñu wax Malick Sam waa Ciloñ la ma réglé ko ko boobu ñetti junni jeexul ci taabalam bon boobu mu meesu mburu de kilo mburu laa wax dañu koy wàjj ba mu kii ñu peese ko muy kilo juróomi dërëm lay jar kilo ceeb yaa ngi ko jënd juróomi dërëm ak ñetti fifin nga jaay juróom benn nga am fiftin ak tànk liitaru diwlin 92 francs nga koy jënd nga jaay ko 96 walaat bu nekk nga am 15 ma nekk ci xam nga kooku ku ku tàmmul jaay fukki dërëm bu commencé di jaay 15 ak duubal da ko jaaxal waaye qu'importe ma ne ah naa ci jàpp rek benn nawet passé waa ji ma réglé woon mu ñëw ma delloo ko taabalam mu ne déedéet bëggutul fekk ñuy gas ko ndiir bi ñu ne ma bon. ñu may la kër ma ne ko lu may dooyee kër xanaa yéen da ngeen ñu ne ah waaw doo am kër ma ne ko bëgguma ko. man lan la bëggoon a man fii lañ dëkkoon ñu ñu may ñu ngi leen may ci boolu église bi boo duggee Pikine église bi foofu lañ leen may ma ne man bëgguma kër ma toog fii di jaay yàlla de balaa kondir bi pare fekk ñoom ñëpp suma client lañu xas na am dara. am na am ku amul woon vingt cinq mille wala cinquante mille bu amee trois cent mille na xaalis may liggéey bee yàgg su morom bi ma nekkaloon Sandaga mu ñëw mu ne ma yow da ngaa dof yow bi boo amee kër booy jaayee da am pas ma ko ah ma gis benn kër juróom fukki junni am fukki niig boobu taa kër Dakar Dakar yomb na am fukki niig waxaale ko ëmb suma xaalis dem fekk suma naajaay crédit foncier kooku yàgg na fa dem na faa lu ëpp juróom at mu ngi tudd Limaan Guèye crédit foncier boo waxee Limaan Guèye rek parce que moom moo di saxaar la la nekkoon di jàng nekk na fa ñaar fukki at ak ñett di jàng alquran ma ne ko dama waxaale kër juróom fukki junni ma génn xaalis rek mu jooy mu ne yow ci famille yi nga bokk ci suuf bi ngeen am nga nekk fii ci jënd kër mu ma jël suma xaalis ñu xàcc xam nga kale sooba na ma pour ma dugg ci kër mu ne booy jaay da am paas waaye su ma jaay jooy ma bàyyi ma toog temps ay so fekk am nañu indépendant booru 63 am ku ma jaay kër 400000 ma am ñaar fukki nii ak ñaar usine bentali usine bentali ma jënd kër gi ma ne ko comme ko kër gi man boobu dépasse ñaar fukk ak dërëm ak juróoma laay joxe xam nga léegi soo fekkee am naa kër boo xam ne weer bu nekk mu gën trente mille muy par jour mille francs ma ne ah dépasse bi assuré na waa ji li mu ma waxoon wax na dëgg ma jënd kër gi ma yor kër gi ñetti at jaay ko un million quatre cent cinquante trois lu jaayoon mujj nag may jënd kër di jaayaat di seet nag lan laay def su ma waxaalee ba pare ma am benn inspecteur domaine ma dem ci moom wax ak moom mu ne ma kër gi ki lay jaay moo ko moom bu la defaree ak téléphone di ngeen signé jëndal ma jënd su ma jëndee defar jaay banque yi nag gis may am xaalis boobu bee woon. waaw numéro compte bi man xëy ko moo ko gisee mu ngi nii numéro compte 13 680 59. bii la bii compte bii compte mooy suma compte bi awo mm-hmm. maa ngi ko ubbi 72 ko bi ñu koy tëj am na lii te te waxuñu dëgg waxuñu dëgg waaye qu'importe bii moom waxuñu amee na bor mm-hmm. bii nag Abdoul Mbaye moom mm-hmm. moo ko ubbiloo mu nekk ak moom di liggéey am na ñaata amee na bii la amee na bor. 7 mhm. milliards. 180 millions waaw ma ne ko leen. waaw nan lay amee 7 milliards man Abdoul Mbaye moom moo biloo compte bi maa ngi liggéey ba Abdoul mbay tiit benn bis mu ne ma bii xaalis foo ko jële ma ne ko ah boo yaakaaree xaalis bu tilim man su ma amoon xaalis bu tilim sax damay jënd camion saabu raxasoo ba mu set ma ko man. nangu naa nga ñëw expecté seet mbar xaalis bi dema jaay walla lan la boobu tubaab bi décidé ne ceeb bi den dem kilo 600 ma xar suma tubay lànk fekk wax naa ko ak ak bi sumaare indi bateau indi fukki bateau ak juróom. balaa ñuy xuus ni ci loolu dinañ wax ci sa diggante ak ki nga xamante ni rek moom moo di Abdoul mbay parce que bu ñu xoolee ci li ñu documenté wu yaa ngi commencé am ay jafe-jafe ci sa wàllum liggéey ak wàllum yoon ci atum 2008 atum 2008 boobu ci nga commencé sa diggante ak Abdoul mbay ñu bëggoon a xam coow li ginnaaw ba xam nañ ne fii la soqeekoo moo la tijjiloo banque boo xamante ni mu ngi CBAO dugal la ci wàllum banque mhm. loolu moom moom la di jaawale moom banque tunisio sénégalais moom la ma ubbiloo banque bi mu moom ko mu ñëw mu ne ma am na ku fi yore xaalis bu bari waaye étude bii dafa jafe ma ne ko ñaata mu ne dix ma defal ko si chèque dix millions mën naa génnee chèque bi ma jox ko ko. xaalis boobu pour lan la woon. pour mu def étude xam nga bay def banque il faut nga def étude ma jël étude bi. mu jox ma ko xam nga léegi toppatuma ko dara comme que jox naa ko 10 million defar na étude toppuma ko dara mu dem ci Mamadou Touré man man man ma jël étude bi dem ci Mamadou Touré Mamadou Touré su ma mbokk ci wàllu bi nga xam balaa tubaab yi ñëw ñoo bokk canton bi ñooy xeexee mu ci loon la dëkk ma dëkk jàll bon ma won ko mu ne am na lu ci baaxul boo boo mu ne jëli Abdoul ma dem banque centrale jëli Abdoul Mbaye indi ko ci Mamadou Touré Mamour Touré régleel ko mu tegu ci yoon banque bi ubbi ñu jël Mamour comme président conseil administration xam nga léegi Mamour day comme que dafa retraité woon ñu fexe ba jël ko conseil administration di ko fay solde jox ko chauffeur xam nga day kontaan man te suma du suma mbokk ci wàllu xeet du suma mbokk ci wàllu xeet de waaye nag suma mbokk dikkandoo la ñoo boo sooy la dikk boo sooy laa dikk léegi. du bi ma seetalee nag ñu kontaan waaye ñu gis ni ma du fonke mu jaay banque bi bi mu jaayee banque bi ñi mu jaayoon banque bi ñoo dellu jënd biyaawu mm-hmm. est-ce que da nga wax bi bu baax mm-hmm. bi jiggee suñu banque bi ñu jaay ko ñu ne ma nag bor bi nga amee si boru banque bi banque Abdoul mbay bi fay ko 4 milliards am na abidi dibi yi nga xam ne ci la ñu jëlee xaalis bi am naa ko mu ngeeg man wane ne fay na bi ma fayee nag ba pare ñu xam ne fay na naka fayee bor boo xamante ne yore woo ko. non li ma yoroon bor foofu mu banque biawo bi mu jindee banque sunu banque bay pare jënd biawo ñu ne fayal boor bi est-ce que dégg nga wax bi. bu boobu fay nga leen ko ba mu jeex tàkk. moom moo nekk 4 milliards 802 millions. voilà bi ma leen fayee ñu bind leeteer gis nañu fay nga. léegi amatoo bor nañu dindi say kii xam nga nit ki boo fekkee amaloon naa la bor fay naa la nga ne nañ ko nga bind kayit man laaju ma leen woon de parce que man dama defe ne banque bi maa moom parce que nekk naa fii Bamako téléphoné ñu bil na compte ñu bil ma crédit euh, crédit compte bi musuma leen wax lu ñu bañ bu ñu amoon bu ñu amoon problème dégg maa leen di avali si banque centrale mm-hmm. biawo bi xam nga kooku doo xalaat lii léegi nag bi biyaawo bi nga xam ne moom na eh, léegi jékki-jékki rek ñu ne fay ma fayal banque bër bi nga am ci Abdoul ma fay mm-hmm. bu nekk mun naa la woon kayit fu ñu ko débité mm-hmm. ban jour mm-hmm. ñaata lañ débité mu ngi ci relevé bi mu ne léegi nag kon ko fay nga ñu bind ma lettre bi ñu ne ah fay nga nag léegi na notaire bi dindi delloo la say kayit notaire bi man xaw ma lu xew bi ñuy def jaay sumay kër Euh, tey ñu daal di gis ni notaire boobu jaay na say kër ñu daal di ne dafa am bor boo xamante ne yow yaa ko yoreel CBAO ah. mu daal di toll ci onze milliards. Ah. onze milliards yooyu. onze mhm. dañu wax ne maa leen amal sept milliards. mu ngi nii moo ko bind kayit bii ñoo ko bind. onze milliards yi ñuy wax kon tey mën nañaa xam naka la demee. jël ci suma compte man maa ko jël ci suma compte di ko jox bis 6 ci suma client boo xam ne moo ma doon jaay ceeb waaye nag xam nga soo fekkee yow. kon banque bi tolloon na benn moment am na problème mu xaalis ba yow yaa doon yëkkati sa xaalis di ko ci def. leen jox wala ma defar leen traite ñu dem yóbbu banque centrale ñu lebal leen xam nga man banque bi dama ko téyoon comme bokk waaye tubaab du mbokk kenn tubaab du mbokk kenn. te tey banque boobu Abdoul Mbaye moo la boole ak ñoom. déedéet dañu jinde bu Abdoul mbay nekkoon ñu delluwaat jinde biyaawu ñu def Abdoul mbay directeur général banque bi est-ce que comprendre nga. Abdoul Mbaye tey dem nga gis ko ci problème boobu yéen ñaar ngeen toog wax ci ngir mu mën a lijjanti wàllum koppar googu. Abdoul Mbaye bu mu yaakaaree ne rëcc na euh, bi mu nekk premier ministre gis na ma benn yoon waaye bi mu jógee ci premier ministre bi léegi xanaa ñu tase ci mbedd rek. Mhm. kon daal bor bi waxatu ci dara. bi moom moo xam nga léegi banque bi ci boppam ak Abdoul Mbaye ñoo gën a xam li may wax lan Abdoul Mbaye sax am na bé parce que man su ma soxloon léegi cinq milliards ci boobu tax moo wax Abdoul Mbaye soxla naa cinq milliards même bu dee ci mbedd lañ tas dama signé rek ma dem jël amul wax. tey sa kër yi nga xamante ne jot nañ kaa jël jël nañu say kër jaay ko te yëguloo ko gis nañu ay kayit yoo xamante ne war nga war nga ñu ko te moo ñu ko firndeel. tey loolee lépp ñu daal di koy jël mu mel ni mbir mi mbirum jaay doole la. waaw njaay doole waaye dañu am fu ñu làqu ñoom bi ma leen jëkkee yor bu terminal ma dañoo dañ maa yoral trois milliards huit cent et quelques millions ñu ngi ma ko yor biyaawoo moom ko yoral du banque Abdoul Mbaye banque biyaawoo ci boppam moom ko yoral bi ñu ko. lan moo tax ñu def ci CBAO. CBAO léegi xam nga CBAO mooy biyaawoo. CBAO mooy biyaawoo. d'accord kon daal bi la ñu daal di soppi. waaw léegi xam nga bi ñu koy jaay secrétaire général mu ngi dund wax nañu ma ñaata action nga ci bëgg ma ne ko bugguma ko. ñu ne ñu may la ma ne ko bugguma ko ñu ngi réunion woon hôtelu euh, ki Tidiane Diop bi nekk euh, boori Perentanja Croix du Sud mm-hmm. moo tax man dafa ma bett. Mm-hmm. xam daal li nga bëggoon rek moo ñu yëkkati sa xaalis jox ko mais soxla woo ci woon action soxla ci luñ la may. déedéet man Abdoul mbay même bi nga xam ne nee naa ko comme que léegi ni banque bi dugg naa ci. xam nga déggoon naa banque xaraam na waaye nga xam ci fànn bii la ko xaraamee xam nga léegi mun nga dégg affaire yu bëri lii xaraam na doo tax li tax mu xaraam moom banque moo xaraam waaye du liggéey nii rek ngay génni sa yëf di jënd di jaay di fay bu ñu la fay rek ñu am ci fere loolu garaawul torop li gën a garaaw mooy moom banque da ngay sàcc yëfi jàmbur di siife léegi nag man ci suñu bopp lii suma problème mooy man xalaatuma woon koo xam ne yóbbu nga ko tribunal ba directeur général bi nekkoon biyaawu porte malade ñu indil ko certificat médical parce que juge bi dafa xam ne bu amul certificat médical dañ koy tëj. loolu. ñu daal di gis ne nguur gi nga xamante ne moom moo fi nekkoon te gouvernement boobee Abdoul mbay daal di ciy nekk gis nga bu baax que ni mbir mi dañ cee wane ab tekk-tekkaaral gu mot sëkk tey ñu daal di seetlu ne gouvernement bi changé na beneen jiitu réew mu ngi fi muy le président Macky Sall ginnaaw problème boobu noonu tey ba xam déggante nga ci ak moom wala kenn ci ay membre de gouvernement am ngir ñu mën dimbali ci problème bi. déet xam nga nee la dafa am lu ma la jëkk wax jaaykat commerçant yaayam bugg ko ñun bi indépendant amee ñoo xeex indi tubaab tubaab yi euh, dootuñu indi ceeb ay modèle porom modèle fer daw semaine ñoo fi nekkoon ñu xeej leen dindi ñu def regroupement kermesse ñu dem bee yàgg ñu def benn société bu mag boo xam ne commencé ça coow am ñu daaneel sunu bos ñu def inoses coofeses ci laa bokkoon mm-hmm. am na ñi ci bokkoon ñu dund waaye bariwul bon Senghor mu ne tase leen nekk benn ma formé leen mu fas nekk ZES ZES li ko indi UNOZES ak COVEZES muy ZES soo fekkoon nit dana dimbali banque yi xam nga nit ki mënul wax ne li ma la amaloon fay nga ma kon nag nañu dindi moom moo bind de man ñaaruma ko woon mënul indi demande bi ma defoon ma ne ko delloo la ma sumay kayit est-ce que dégg nga moom rek moo bind mu ne kii fay na léegi nañu ko delloo ay kayitam jox ko notaire waaw notaire bi mu jaayoon la yow kër cinq cent millions nga fay ko ci boobu zaman mu nangu ñu mite kooku moom boo seetee li mu jàng baaxul mm-hmm. waaw kon nag man yaakaaruma ku dul yàlla mun na xeex ba ñàkk noonu mooy àdduna parce que bay guerre doo yaakaar yow rek yaay gañe mun nga gañe mun nañu la gañe mm-hmm. mm-hmm. tey jii nii xaalis boobu yëpp mën nañaa xam ne ñaata lañ la yoreel exact ak ñaata ngay sàkku tey pour ñu fay la ko. man daal li expert bii ma seetaloon lu ma wax mu ngi nii. ci bateau yi ma indi frais la frais la. déedéet waaw dama lay wax. xam nga bateau kii bato bii la. Mhm. deux milliards quelque. nee nañ fay naa ko. kii deux milliards et quelque nee nañu fay naa ko. benn bu njëkk bi moo ngi nekk deux milliards deux cent. waaw cent vingt huit millions. waaw bi ci topp daal di nekk deux milliards huit cent vingt et un millions. beneen bi ci topp trois milliards. neuf cent trente neuf. bi ci toppaat trois millions deux cent cinquante neuf. trois milliards. trois milliards deux cent cinquante neuf. bii ci topp. deux milliards quatre vingt. cinq milliards quatre cent dix millions. bii deux milliards. bii deux milliards yëpp ñu ne fay na bii ñu ne fayuma ko gisuloo dindi lu ñu ko fere kon kay. bi ñu nga wax ni la fayuñ fayuloo ko. moo nekk ci cinq milliards. six cent cinquante millions léegi kay ma ne la kii. Mhm. xam nga xam nga ñoom. ci seen bopp xam nañu ne bateau yi am na xam nañu ne gis nga kayit bi fournisseur bu ma jox dafa waxoon avis bu ñëwee dakaar dañ koy fay kon à vie. Mhm. du man maa bind. fournisseur bi yaa ko bind. ñoom ñoo ko bind. bon kon à mooy mu ngi tekki. Mhm. boo gisee rek. Mhm. da ngay fay balaa ngay laal. kon xam nga léegi bu ñu ko bindee à bu ñu nee amal naa leen waxuñu dëgg teeku na gis nga bateau yu bari yi ma def yëpp moom rek moo ci am ñett benn traité ngi nii. mu jëkk jox expert bi expert bi mu ne kii si ñëw. mu indiwaat bii expert bi mu ne kii kii si ñëw. mu indiwaat bii ma signé mooy ñoom ñoo ko triqué triqué waaw kon nag nga war a xam ne xam nga ñoom dañoo defe ne ne seen njàng bu woyof bii eh, am na njëriñ su ma expert bu ma seetaloon mu ni lii la ñu ma amal trois milliards huit cent ginnaaw bi nga xamante ne jël nga sa xaalis daal di koy dénk benn expert boo xamante ne moo ko war a saytu. voilà mu daal di ne liñ la yoreel mu ngi toll ci trois milliards huit cent huit million cinq cent vingt deux mille six cent vingt sept. loolu la la banque bi yoreel. léegi nag banque bi xam ne wax na loolu il faut mu fexe bi nga xam ne directeur général bi ne feebar na mu dem Maroc ñu fexe bee wax am ñu ñu waxal mm-hmm. ñu ne léegi koy doubler loolu. su ko ne amal na leen day wut mucc boo wutee mucc xaa xooram c'est-à-dire boo ne yàlla na suma day ah ji métti na dootoo tal dara da ngay tal mu wér rek mm-hmm. est-ce que danga nga wax bi mm-hmm. loolu la nag. yow bor biñ la waxal nii mosoo leen kaa yoreel ñoom ñoo dem doublé liñ la war a fay daal ne la moom nga ñu yore. ndax ndax ma bañ leen talati. waaw xam nga ñoom xam nañu ko sax jaaxul leen nga gis Mhm. bateau bateau yi ma indi woon vingt et un mille quatre cent vingt et un mille kii indi mille sept cent tonnes. non non dix sept mille six cent cinquante tonnes. beneen bi douze mille quatre cent quatre vingt et un. dix sept mille cent cinquante trois. dix mille quatre cent dix. ñu ne bi. waaw ñu naa bi ñu ne bi. ñu ne bi. Mhm. ñu ne ma ne ko waaw yow. li tax yow léegi bii ñu def croix ne la fayuloo ko. moo nekk montant bi moo toll ci. six milliards six milliards cinquante. xam nga léegi boo gisee loolu day am frais frais transit ak yooyu. waaye cinq milliards ak quelque boo xam nga léegi boo seetee bateau yi ma indi yëpp mu ngi nii un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze onze bateau yi ñu ne bii. tib naa ko fayuma ko ma ne ko waaw xaalis bi ba ma am ci yéen laay versé ba ngeen tiit xaalis bu bëri di ma laaj mbar xaalis bi du balansir nee naa leen su ma amee bu tilim dama koy fóot ba mu set mm-hmm. su ma amoon xaalis bu tilim dama koy fóot ba mu set mm-hmm. léegi kay soo soo fekkee am nga ci duut ci li may liggéey ñëwal déplacé ñëw tiim njaay mi mm-hmm. ku indi deux millions dootuma wàññi sa xaalis client yëpp rang fii tubaab yi décidé ceeb bi dañu ko yóbbu kilo téeméer ak ñaar fukk ak juróom léegi nag ji Moustapha Ndiaye jël si na ma fii ci guddi dem naa bureau agib di jël naa volontaire ne danaa ko réglé ñëw toog ak ministère de commerce ak directeur commerce indi bateau yu bari pour régler ko dee xej na ci waaw kon nag léegi sax même léegi comme comme man ñoo ma ñu ne ma lii boo ñu ko dimbalul du baax su ma amee wax di wax war nañu déglu xaj bu ñu déggee mu guddi du njombor xaj bu bawee guddi du njombor dafa am lu mu jiit du ko ëpp doole léegi man ci suñu bopp lu ñuy layoo nii comme que nee nañu fi ñu jàppoon boobu du jàppukaay boobu baaxul kooku ak gañe naa leen du benn man waxuma gañe laa ni de ñu ngi xeex waaye boobu ñu waxoon moom cour suprême mu ne dënni la ko léegi nag ñu ngi continuer di layo am na expert boo xam ne tribunal nommé na ko be ñu ne soo fekkee génnewu leen traite laaj nañu leen traite bi mënuñu ko génni su ngeen ko génnewul da ngeen ko amal xaalis su ngeen ko génnee nag mu amal leen un milliard cinq cent su ngeen ko génnewul nag amal ngeen ko xaalis waaw boobu expert def na lu mu def kay di ànd ak ñoom léegi beneen expert mu ngi seet ba tey tribunal la ko yoon xam nga kooku soo kooku génnewu rapport am soo nee yaa gañe nga wax wax euh, non waxuloo li war a nekk waaye nag kuy dem làmb musul wax dañu may daan waaye nag des na waaw waaye xam naa ne ñoom xam nañu ne boo doon dañuy wax dañuy toog wax même lu nit dunga di lu jubadi jubadi danañ wax ne ah kii kat neexoo a wax am na loo xam ne neexoo a wax kii mooy relevé banque. Mm-hmm. kon relevé yi banque ñoo ko tiire jox la ko. ñoo ko tiire mu ngi nii. Mm-hmm. bii mu ngi toll ci quatre cent quatre-vingt-deux millions. voilà beneen bi ci topp mu ngi toll tamit ci quatre cent quatre-vingt-deux millions soixante-deux mille trois cent cinquante-cinq. bi ci topp mu ngi nekk ci quatre cent quatre-vingt-deux. waaw kon xam nga. bii. tamit même chiffre bi moom lañ fi trouvé. benn rek moo ci waroo lii mhm. parce que boo xoolee montant bi mu ngi nekk quatre cent soixante quatre. beneen bi ci topp nekk quatre cent quatre-vingt-deux yii ci topp yëpp nekk quatre cent quatre-vingt-deux somme bi daal di nekk somme bu exact mm. léegi tey boo ko totalisé ci la lay joxe quatre milliards huit cent deux millions cinq cent soixante gis nga tubaab yi ñu yebal fii temps bi nga xam ne xulóomu ak ñoom tubaab bi bu ñëwee ñu bëgg leen jaaxle ñu neen dem leen ci bookar ñun di antam peret bu ñuy di antam peret ma jéem a làkk suma tubaab yoo xam ne yow yow sa kii noo ko ma ko xamee rek waaye nag tubaab dañu wax ne yéeféer la mm-hmm. waaye tubaab li mu ginee nit ku ñuul bari na ci jikku jub mm-hmm. jub lu ko gën bariwul man gis naa benn tubaab ma wax ak moom am lu ma doon defaral suma benn mbokk bi mu jotee li muy jot mu ne waaw léegi loo ko bëgg a defal ma ne je voudrais cette angoisse qu'ils avaient de lait je donne lui qui boit mu ne je ne ma ne ko je voudrais à cette en maison chaque mois je gagne lu waay donné tubaab bi xool ma jóg taxaw mu ne regarde moi ba ma ne ko je mu ne mon travail je tout le mon travail j'étais donné cadeau xam nga kooku bu ñu nee yéeféer la ah xanaa ci yenn jëfin yi waaye yàlla ku ko duur xeer ak ku saaga yem ci moom parce que xeer bi du ko daal xamul luy saaga yàlla dafa am loo xam ne bokku ci boo meree yàlla it boo sànnee xeer du dal kenn. dafa am laaj boo xamante ni dama kaa bëggoon a laajte muy lan moo tax Bocar sàmba Dièye boobu ba léegi mësta tuxu ci koñ bii nga xamante ni fi la dëkk. lan moo waral loolu dafa am secret bu nekk ci kër gi wala lan la. fii dema fii toxu bi parce que dama naa la panter laa bëgg luwe kebe la borom sant mille francs ñu def kon dër bi ñu toxal ma ñu ne ma ñu may la kër ma ne ko bëgg ma ma dem luwe benn kër jaxate sari dixième assistant chef service kër gi def nga fi ñaataat fii ñu la. xaaral xaaral damay ñëw foofu dama ko luwe cinquante neuf ba soixante quinze. décembre 75 ma jënd kon liwe naa ko sept ans mm-hmm. dafay luwaas ma jënd ko 1975 fekk nag jënd naa ay kër jaayaat commencé na am xaalis léegi nag yàlla def ceeb jafe directeur contrôle économique mu ne ma bokkar nguur gi dese na na nga dimbal nit yi nga réglé yow na nga jaay fukk ak ñaar Sénégal yëpp nañ jaay ñaar fukk ma ne ko loolu day xanaa ngi ne indi alkaati yu bari ñu ñu affaire bi waaye su loolu man mënuma ko wax dëgg yàlla ñu indi neuf alkaati euh, sept alkaati ak ñaari inspecteur muy neuf ñuy def rang may jaay muy def muy jaay ba yegg commissaire bi jóge biram ñëw xam nga léegi mën nañu diis mu ne naa ko jaay mu ceeb mu jaayaat ma ne ko déedéet yow engagé woon mm, nekk Euh, commissaire pour jaay ceeb ñu am problème ñu dem ci directeur bi mu ne xamoo kii def waat ma ne ko def waaj waat ci liggéeyam waatul ci njaayum ceeb maam dem na nañ de tribunal fekk ma am auto rapide ndondi mu ne dootoo gaare ki mbedd mi xuloo boobu ñu bàyyi ma fi ba yàgg ma def ko titre foncier loolu ama indi fi waaye fa laa nekkoon maa ngi ñëw si 72 déedéet falee nekkoon fi ma nekkoon bi may luwee barak bii sax mënu ma ko loué woon lépp 4000 bi dama loué benn mocc bi mocc bi 1750 di euh, su ma liggéeyee ci bitig bi ma boole ko dem fay borom ba ma jënd kër gi 60 1965 décembre 65. Mhm. Mhm. décembre 65 ba 2000 ba 2020. waaw waaw déet boobu boobu taal laa ko jënd boobu fekkan man ma jënd lu ëpp juróomi kër jaay. man li ma jaay ci kër ëpp na téeméer musuma ci am wax it musuma ci am wax wax yi yàlla dimbalim man bi ma amee wax bi lu tax mu àgg fi mooy dañu ma bett bu ñu ma bettul woon du nekk ni man xalaatuma ko. Hmm. mu daal di nekk ay kàddu yu am solo yi nga xamante ne rek Bocar Samba Dièye moom la doon yëkkati xanaa rek ñu daal di lay bàyyi nga tàggatoo ak internet yu bët set yi nga xamante ne ñoo doon lay seetaan ñu bàyyi la nga wax kàddu gu mujj gi lan la. man de maa ngi ñaan yàlla defal leen jàmm mu def jàmm ci réew mi feebar bu ñuy wax nii dara mënu ko faj lu dul ñu ñaan yàlla yàlla nangu xam nga nag yàlla kenn du ko obligé dara yàlla kenn ko jox dara yàlla kenn ko defal dara yàlla kenn du ko xaañ dara munoo def lu bon ba ba mu àgg ci yàlla loo mënta def sa bopp nga def yàlla moomu nag yàlla na leen yàlla defal jàmm defal mboolem julli ak ku ko dégg mu nekk mu naqari mu baal ma mu xam ne man li ma ko wax mu foofu la toll ci man.